moo ñu tabaxal tali yi de moo goudron tali bi de Macky Sall ba loolu dara wax dara wax ju bëri boole ko taxaw fi mu taxaw rek doon président bu solo ko sim rafet ca lool jekk lool macha allah bu demee bitim réew du woo ku koy dimbali xam na parce que dafa yàgg ci politique doon góor nag góor ca wax ja wax waxeen moom. Abdoulaye Wade moo ko fi njëkk def du Ousmane Sonko Abdoulaye Wade moo njëkk taxaw ne maa waxoon ñu ne ko waaw mu ni maa ni waxeet te bañ koy fal stade ay amitié la jël stade bi gën a ngand ci senegal tey bu doon Barcelone la ma leen stade Camp Nou la jël bu doon Madrid la ma ni leen stade euh, Santiago Bernabéu la jël bu doon Milan la ma ne mu ngi ci stade Milan ancien ñëpp taxaw. Sénégal nag bëgguñu dëgg ku ne dañ war a changer waaw Sonko costume bi Sonko mu sell mi Sonko mu siil mi léegi nag Sonko ngoo tëggaloo na leen ay bool ba ngeen bëgg a dee musiba naaru lay ñu xëpp ci réew mi mu ee mu xam ne mënta falu mu fal doomu ndeyam jomaay fay jomaay ñaawaay bi ci moom jomaay da nga koy xool nii xam ni jomaay nii nit ku baax la nag moom du wax lu bon du wax lu saal mais ki mu àndal la bon te kooku moo koy digal bu ñu demee ba réew di am ñaari président xam ne réew mi yàqu na kenn mënatu ci dara kenn mënatu ci ëkkin ay Mollah Morgun ay saagakat ay Assane Diouf ay saagakat ay Guédiawaye ay ñoom Karim Xrum xaax ñi doon taxaw di duul ñëpp naan Sonko waaw mu Charles mi Sénégal devient comme la France ma ni influenceurs yëpp maa ciy wax dëgg ba ma nee Macky ba léegi Macky la te man du ma voteel Macky man maa ngi Espagne Barcelone yore këyitu barcelonaise man barceloneta laa man barcelonais laa je suis barceloneta Europe laa nekk seen xol di dagg du ngeen ci mën dëjëw ndeyam maa ngi fii di baax ngeen nekk Sénégal nag Ousmane Sonko di leen buggal ku wax mu jàpp katt sa ndey ci kaso bi lii ngeen mérito lii yéen a ko mérito barki Seydunaa Muhammad yërëmuma leen ku ci dugg gaal gaal ga katt ndeyam nit ñi katt seen ndey dee ak Macky Sall la ak sëriñ yi ngeen doon saaga ba jiitee Sénégal mënu leen ci dara tuur deret Sénégal bañ ko xamee dans l'histoire ba sunu jamono yu maam ba suñu jamono yu tey Sénégal mës tëmmel nii mag ñu baax ñi ñaan nañu maam borom Touba ñaan na maam Limaamu Laay ñaan na bàyyi fi ana ñaan yi léegi tous <laughs> yéen a gën a sonn pauvre <laughs> sidaa bi bëri Sénégal nag da ngeen a sida ba yàqu vingt deux millions Sénégalais ñoo sida 22 mille sénégalaises jigéen ñi di jaay seen yàpp data ndeysaan di jox seen yaay ñuy lekk te seen yaay du leen wax dara xale yu jigéen yor ay iPhone booy di photo seen data yi di yónnee góor yëpp. di vidéo seen data yi di yónnee góor yëpp di kattante fu ne ñu leen di katt dëggantaan di leen katt ci mbedd yi di leen katt ci grand place yi di katt seen rey ci discothèque yi eh Sonko ñëw tëggaloo leen ay bool ba ngeen di tëgg bool waxoon naa leen tëgg ay bool baaxul ci réew mi li ma fekkee daa bëri yéen da ngeen mujjee juddu ñu ci bëri doon ànd ak Sonko 2000 2004 lañ juddu yéen bi ndongoloo di génn àdduna fekkeewu leen ko du ma leen wax sax maam Abdoul Aziz Dabax Mali Ndiogu Faama ba rek dara maan arab loo kuma caam Sidi Fagay mi Missé Diawar mag ñu baax ñi fekkeewuñu lii. da ngeen a jëw mag ñu baax ñi yéen jeunes yi e day metti ci yéen de bu ngeen ñëwee fii fii mooy gën a metti yéen da ngeen foog ne ngeen di ñëw Espagne rek ah rek nekk di fëlaale di ngeen fi dund lu kat la fal ndeyam di ngeen ko daj ci dëkk bii bala ngeen fi tekk di am kayit fii fii yéey gën a tar ci yéen waaye bu ngeen muñee dina mas a neex ndax fii Europe la nag wax dëgg yàlla du ma leen découragé loo ku ci xasa dugg daal ba génn Sénégal ba dugg Espagne yow santal yàlla rek nga julli ci Seydina Muhammad boo masul julli sax kàbbaral ñaari ràkk nga julli te xam ne yàlla dala bëgg dëkku jàmmaa ngi fii boo la eh, boo fi amoon ak problème doomu ministre bi sax dañ lay àtte ci yoon Sidi Diop barki démb la doon dawal oto amul permis ñu jàpp ko ba noppi bàyyiwaat ko parce que day woy loolu bu doon Europe la dañuy déggal ndeyam ci kaso bi fa lay deewee dëgg nag neexul bu leen neexee saaga ma man dara safuma bu leen neexee yàq leen ma bu leen neexee xas leen ma waaye fii ci Europe ku ma laal tubaab yi toj sa cottu nday maa ngi fii di baax sama fuu ci yéen yërëmuma leen sonu leen sonu leen da ngeen yaakaaroon daal Sonko bu jëlee réew mi ngeen ngeen mën a am salaire u quatre mile du ngeen ko fi amee maçon yi eh deux mille cinq cent maire yi jaay gerte ci mbedd yi maçon maçon yi journée mille cinq cent mécanicien yi metti rek entrepreneur yi metti rek ñi ne ci gouvernement bi nag nooy nepp neex la nag seen caga yi neex le lii moo am lii mooy dëkk waaye Macky sàll dafa ñëwoon topp ci mag ñu baax ña la mu daan defal waa Tiwaawan loolu daan defal waa Touba voilà Abdoulaye Wade boo gisee nawuma ko dañoo woo ca stade amitié ñun ba ñuy bëgg ay politique booba <laughs> ay ñii xewuñu man ci Ablaye Wade laa bàyyee ay waxi politique man woo doomu sénégalais yi ñu ñëw ba ci stade bi bëri fa lool mu naan je te le jure moom dafa ñàkk jom Senghor la doon xëccool Senghor la doon xëccool Senghor gañe ko ak Lamine Gueye ñooñu ñoo doon xëccoo Sénégal gu njëkk mu ñàkk a jom ñàkk a jom ba di ko xëccoog Abdou Diouf yàlla jël réew mi jox ko mu woo Sénégal yi waat ci alxuraan mu jur mu ni sama serment lépp lu ma dégg senegal yi danaa ko def ay duuli kese Touba la jël defar ko ba mu rafet defarul dara Tivaouane deful dara Ndiassane moom lay Wade ñu foole ko mu dem toog Sénégal dem toog fële euh, euh, ca France di xas Macky Sall naan Macky Sall la dañ koy tooñ yooyu mag mu ñàkk cokk la ak at yi mu am ku wor sa askan danga koy gis ku wor sa nit da koy gis jëf joo gis am na fay bi ngeen di génn di taal tali bi bi ngeen di génn di bi ngeen di génn di dagg train bi Macky Sall la ba France indil leen terrain train train européen ngeen mel ni ay bàyyi ma yéen Sénégalais yu toj seen cot nday yàq terrain bi di ko dugg di jàq di bu lu ngeen def ko mel ni ay bàyyi ma lu mu gis si réewu tubaab bi ñëw andil ñu ko Macky Sall kenn war ko fi jële bu fi nekkoon ba léegi non Sénégal avancé na waay ngeen ni baaxul ci réew mi tong-tongal ko saagoo ko ay ndañ yaayam di ko sufriir Macky Sall am ay doom am jabar ju baax nag jabar joo xamante ku feebar mu paasal la yóbbu la Europe xoolal jabaru jomaay fay bi est-ce que kan la fi yóbbugum Europe faj ko yéen kii ba mu faloo ba léegi nañ jàpp nit ñi tëj ci kaso bi yow diggoolu woon loolu askan wi da waxoon bu buñ la falee da defar Sénégal ba mu mel nii Europe du dëgg duul nga foofu waxoon ngeen ni bu ngeen faloo Sénégal am na maanaam am na ay nuñ koy waxee zircon lan mooy zircon Macky Sall ma suñoo wax waxi zircon dafa ñëw naatal réew mi defar tali yi ubbi stade yi chaque jour mu inauguré dem ba pont ba nekk ca Joal Fadiouth mu def fa pont traversé Sénégal da ngay yéeg avion team Sénégal nga nga yàgg yaa ngi Europe allahu akbar sama yaram daw lii bu leen dalul woon ma rus bu leen dalul woon ma rus yéen ñi ko faloon yéen a di ko xeex léegi tey dégg naa Karim du lu mu naan waaw ñun mu naan waaw ñun lañ doon kum xaqa da ngay yow da ngay toj sa cotu nda yow Karim kum xaqa yow sa tur bu katt la fal ndeyam bii yow wéeroo dof doomu saram ndeyam bi Karim kum xaqa yéen a influencé Sénégalais yi yow ak borom bu katt la fal ndeyam nekk Amérique yéen leen fal yéen a bu kenn daw génn Sénégal nag gaal yi ngeen di jël sax waru leen ko jël bu ngeen amoon jom am fulla am fit da ngeen di toog ci réew mi ngeen développé le Sénégal waru faale tubaab yi ndax Ousmane Sonko dafa ñëw ne leen tubaab yi baaxuñu ñuy xas tubaab yi guddi xas tubaab yi bëccëg. kan mooy woote nday sama téléphone fixe bi nii waaye cottu nday lii kiy woote waay. yéen bëggu leen dégg dëgg fu ngeen fekk dëgg rek du ngeen ko nangu yéen ku leen waxoon ni leen Ousmane Sonko ak Diomaye fay dinañ jiite réew mi Sénégal gën a metti oto yi di këppu parce que yéen loon tëgg ay bool xam ngeen li ci tëgg bool jël ay bool ñuy jël ay kuddu ci noir nii xool leen ñii jël ay pool naan nii di tëgg di tëgg ay pool woo jinne ndakaaru gi ngeen yee maam Kumba Bang ngeen yee sama maam njare ngeen yee la daawur sama maam mataar si la xari jóob ngoone me nga yaay jaal da ko ma a jox cër rabu ndakaaru gi yépp ngeen yee leen allahu akbar rab day dugg ci nit barki Seydouna Mohamed man mii dama ànd ak ay rab dama fees dell ak ay rab barki salaatul faatiya dama bëri ay rab ci sama yaram man dama bëri ay rab sama jikko mënu ko xam damay ñuul di weex di changé def ay couleur rab yee moo koy def rab yi doon nelaw yépp kumba kasel nga xamante ni Abdou Diouf da ko bëggoon Macky Sall bëgg ko ba tuddee ko bato Kumba Kastel non non Abdou Diouf moo ko tuddee woon Dakar Kumba Kastel Abdou Diouf Kumba Kastel man biñ ko liggéeyee lundi mardi laa ci yéeg jamono jooju maa ngi dem école ñu jël ko xola tuddee ko xola bato Kumba Kastel da daan mer kattan ayu géej gi ba waa Tëngéej yëpp dañoo mujje baare ay ay barrière ay xeer ay doj réew moo gis am na aada am na cosaan ngeen jël cosaanu réew mi yëngal ko fëgg seeni bool yàq dëkk bi tasaare ko rab yi jóg di kattandayu oto yi dangay ngay gis oto bu yab nit rab yi kattandayu néew yàpp dëgg seen nday ñaara ciy dund dama leen ko yéene <laughs> ngeen dugg ndayu gaal gi rab yi kattandayu gaal gi du leen may ngeen yegg Espagne dañ leen di teel ak dëgg ndeyu gaal gi parce que da ngeen a yàq réew mi dangeen ngeen a toroxal kilifa diine yi bu ngeen demee bay saaga sumuy chef religieux ngir jiite réew mi fëgg ay bool yee ay jinne yee ay dëmm yee ay rab rab yi di fayu e dañuy fayu man su ma neexoon fii lay toog naan xaal xaal loxoo kenn du Macky Sall la kooku nitu yàlla la yar gi ci moom mosoo dégg Macky Sall mu wax ba tudd politicien wax ci moom lu ñaaw Sonko boppam rek moo ko ñor na doon président président dafa neex xooleen leen Diomaye Faye léegi dafa rafet président Diomaye Faye léegi dafa jantal mais c'est normal c'est normal léegi dafa rafet yi dafa rafet may wax ngeen naan montre Ousmane Sonko bi ngeen di kaas yéen da ngeen a wérul sëgëm man soko may takk montre yu mel nii lépp nekk or Ousmane Sonko mi jiite Sénégal warul takk or jamaa sax mérito toolu ko ndax ministre la ministre war na takk jamaa yéen yéen yéen yéen yéen xamu leen seen bopp. may wax ngeen ni xool saagu jabaru Jomaay Fay li mu takk Jomaay Fay moo jiite Sénégal jabaram warta yor saagu deux mille cinq cent déedéet saagu ay deux cent millions la war a yor te moom lay gàddu <laughs> moom da lay gàddu <laughs> montre bi Jomaay Fay di takk yow mais c'est tellement mais xoolal awma ci xolu ki ñaan ki ñuy représenté ci bitim réew sëgëm rappeur américain ñooy takk ay montre cinq cent millions dama ne Diomaye Faye mérito na takk montre milliard d'euros moo tay da dof rek moo tay da koy takk da ngeen mës a gis yéen Marème Faye Sall takk yenn a yéen a takkaay ak simple bu ko neexul mu ni Macky Sall lay sama jëkkër bu ko neexul mu ni Macky sàll mooy sama jëkkër ku feebar ci réew mi sama yoon nekkul ci yow waaye ku feebar mu faj jabaru jomaay nag mu ngi naaya binge ñu doon kaasal Sonko yépp gisatoo leen ñuy wax dañu nii miit lañ def ñun dañuy toog di seetaan rek man ku falu baax na man Europe laa nekk de ma ni Macky Sall ak biiram bu rëy jomaay fay ak bëtam yu gub yoo xam ne ni ngóor la bët du mën a xoole Sonko mookat Adji Sarr man ñoom ñëpp laa yomale mais dëkk bu jotee dañ koy wax dëkk bu jotee dañ koy wax senegal na comme kenn man foo waxee dëkk man fii laay nekk Europe di wax samay dëkk da ngeen a trahir waa réew mi dañ leen jox réew mi defu leen fi tous lu dul jàpp ni kii moo lekk millions yi kii moo lekk sax xaalis Sénégal kii moo tax sax yéen booy yi leen doon xeexal nekk kolobaan ñi nekk ay ay ay ay marché Kermel ngeen yàq seen liggéey xale yi amatuñ fu ñu dem mais dañuy engagé gaal yi ah, mais dañuy dem eh ñëw leen eh ñëw leen dëkku jàmm ji Europe neex na ñëw leen. ñëw leen bisu dee du bisu dund tayu leen ko gaal yi ngeen di jël tayu leen ko da ngeen bëgg a dee kuy bëgg a dee nag kuy bëgg a dee da daw làqu yaa gën a am dañuy daw làqu jomaay fay ñu ko folli woon tey France lay dëkki Ousmane Sonko moom a leerul ndax moom bañ na tubaab bañ tubaab goo xame ni sëñ tubaab sax bañewul woon noonu tubaab yi yow te tubaab yi dégg naa def nañ ko lu nekk moom Ousmane Sonko li mu bañee tubaab yi lan la ko tubaab yi def soo waxee mu naan waaw bu ma faloo rek damay jël réew mi yóbbu ko xaw ma damay jël réew mi ah du dàq tubaab yi yéen dangeen man dara gis naa leen fan yee passé ngeen naan da ngeen di sànni ay missile yow sànni missile yoo xamante ni ci kaw jaww ji kaw satellite ngeen di mel ni réew mu avancé te yéen ku feebar doo faju xaalis bi ngeen di sànnee missile googu ban jamono ba njëriñ la am foofu da ngeen a bëgg def miracle quoi bu ngeen bëggee def miracle dama ni xoolal utal leen ndaw yi liggéey sàcc gi ak tëriyaande gi ak agressé gi mën a arrêté accident du gëj Sénégal parce que booy dawal da ngay am conscient tranquille Sénégal soo bëggee permis cent cinquante mille ngay yónnee ñu daggal la jox la policiers yi di tiriyande xoolal corruption du fa jóge jël kayitu doomu jàmbur yi di ko jaay ay malien du fa jóge ni ngeen bëggee yor réew mi waa baax na <laughs> man de man sama yoon man man maa ngi fii moom man maa ngi fayeeku man maa ngi jot sama salaire sama yoon nekkul ci Sénégal sama ceeb demu fa sama diwlin sama ceeb man man sax maanaam man man may def ci Sénégal ban ndax dinaa yónnee dépense dinaa fay courant dinaa fay ndox seer na trop courant bi ndox mi seer na trop waaye sama yoon nekku ci ndax yàlla may na ma xaalis maa ngi koy fayal sama yaay nee naa ko kër gi nag bul ci balanceel keneen courant sama courant kër na yem ci biir kër gi Sénégal da ngay ñëw fekk ñetti kër yu rangé la benn kër moo am courant xëccal fiil yeneen ñetti kër yëpp gisuleen ko foofu gisu leen ko Sénégal benn kër gu am courant xëccal waa koñ bi dëkk boo xamante ni boo fa demoon tey canal canal rek kanaal ñu tey am canal xoolal <laughs>